internationale. chaîne YouTube ngir jot saa su ay xibaar yu yëpp mi. internet internet yi ñuy xel ci sene info point net ak sene info international ñu leen di nuyu fas yéene defal tënkup xibaar tey vendredi di 24 février 2023 ñu tàmbale koog xibaaru biir réew mi. audition ya tàmbali na ci mbirum fond force Covid 19 gannaaw ab rapport des cours des comptes nag bi nga xam ne kon dafa laajoon ñu ubbi ay information judiciaire ci ñenn ci ay kilifa yoo xam ne kon euh, nekkoon nañu ci boobule mbir bu ñu sukkandikoo nag ci suñuy naataango yu les échos ñu ne nag division des investigations criminelles tàmbali nañu déglu ay daas yu ministère bokk na ca euh, ministère des sports ministère du commerce ak ministère de la culture suñu na yi sax euh, nee nañ yooyu le audition sax di nañ ko wëyal te nag euh, yàggatul dara dina jeex Ousmane ko démb demoon na fale ca Yoff gannaaw bi nga xam ne nag ñu ngi doon amal li nga xam ne moom mooy cent quarante troisième anniversaire kon bu appel Seydina Limamou Laye te mu amoon nag mardi ak mercredi moom nag démb la fa demoon ki nga xam ne moom mooy porte parole bu xalif bi eh, di Mame Libasse Laye dalal ko moom nag eh, mu koy sax fàttali eh, di ko woo di woo acteur politique yëpp ngir nag ñuy daal dox jàmm ak dal ngir réew mi moom Ousmane Sonko nag bi mu jëlee kàddu gi mu xamal ko ne ko moom daal ci tànk yooyu lay dox tànk ku jàmm ak lu dalal réew mi mu ne wante nag daa fekk ne yenn saa yi ñoom dañuy dal seen kaw nguur kon day dal seen kaw ci loo xam ne sax dañoo jàpp ne du yoon. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy fële ca Burkina Faso ko fa nekkoon njiitu réew Thomas Sankara te ñu assassiné woon ko ci 1987 moom nag ak fukk ak ñaar si ñooñam yi nga xam ne ñoom lañ faatandoo woon démb nag ñu ne euh, suul nañ leen fële ca Ouagadougou ca bërëb ba nga xam ne kon foofu lañ leen faate woon ñu nag ki nga xam ne moom mooy soxnaam di Mariam Sankara ak ñaar ci ay doomam ñoom nag fekkewu ñu sax euh, boobule suul ndax daal nee foofu le ñu tànn ngir suul leen fa kon ca la ñu àndul wante nag ñu ne am na ñeneen ñoo xam ne bokk nañ ci famille ba ñoom teewoon nañu fa xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon euh, muy euh, suba lay am at wala boog tey jii sax la am at euh, gannaaw bi nga xamee ne kon Russie envahir na Ukraine amal fa ab guerre ci loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa organisation des nations unies amalaat beneen résolution boo xam ne daal dañ cay laaj waa Russie ngir ñu dakkal kon guerre bi nga xam ne ñu ngi koy amal le ca Ukraine boobu la résolution nag lu toll ci cent quarante et un pays kon approuvé nañ ko ñoom woote nañ ne ànd nañ ca ngir ngir kon. Russie dakkal euh, guerre boobu amal ca Ukraine am na nag sept pays yoo xam ne ñoom nee nañ euh, ànd ci ci boobule résolution boo xam ne kon euh, ONU moom la amaloon démb mu am nag trente deux ci ay pays yoo xam ne ñoom dañ caa maandu néew ñu waaw néew ñu xibaar xibaaru sport lañ koy jeexalee bésub tey bii nag gayndey Sénégal war a nag jongante gayndey basket yi. ci dernière fenêtre pour qualification mondiale lii di basket ñu war ko amal nag euh, seen digg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Soudan euh, du euh, Sud ñoom gaynde yi nag ñu ne daal dañoo war a am ndam ci boobule match ngir assurer kon li nga xam ne moom mooy seen qualification ci coupe du monde basket bi nga xam ne kon ñu ngi koy waajal. tey ci ajuma ji UEFA def na tirage au sort bu huitième finalu Europa League match nii la nar a tëddee Manchester United moom la dajeek Betis Séville Rome di dajeek Real Sociedad Juventus dina dajeek Fribourg Union Berlin di dajeek Union Saint-Gilloise Sporting Lisbonne war a jàmmarloog Arsenal loolu leen tey ci a rafet seen teewlu di leen jox dikk daje ëllëg jaa jëf.